billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin laa hawla wala quwata illa billahi ali alazim barke borom Tuuba asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi maa ngi amaan mbégte di leen nuyu di leen ziar di leen balo aq di leen bal aq di déjël sunum nuyoo ak sunub ziar sahibul fadila Serigne Touba Cheikh Mahmadul Muntaxa ñaanal ko yàlla sunu borom guddal aw fanam doole ak wéram mottali ay naalam ci liggéeyub lislaam bi eh, di siyaare mboolem njabootu Serigne Touba gépp di siyaare mboolem seexi Serigne Touba yëpp mbokk yi ñu am mbégte ñëw ci ànd ak yéen ci waajtaayu Magalou Touba waajtaayu Magalou Touba édition 2020 eh, di fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ci atum 1442 ci hijriya eh, ñu nekk fii nag ci barab boo xam ne barabu taarix la barab boo xam ne barabu fàttaliku la. ay barab boo xam ne barab boo am histoire la ci yoonu murit fi ñu nekk mooy fan mooy eh, palais Alaaji Njuga Kebe bi nga xam ne moo nekk ci yoonu eh, Daarul Mooti mbokk yi fii ñu nekk xam ngeen ne bu ngeen jàkkaarloo ak eh, sama ginnaaw jumaa ji da ngeen wala boog ngeen jàkkaarloo ak soror bi fi nekk xel yu bari danañ dem ci kero bi nga xam ne moom la ko Cheikh Abdoul Ahad doon ubbi ci jamonoy atum 1980 wala soixante dix jàpp quatre vingt mu nekk histoire bu yaatu ndax xam ngeen ne symbole bi lim symbole mooy bato bi andi woon sëriñ Touba jëlee ko ci géej gi te yaakaar naa ne loolu la fàttaliku mooy demuk Serigne Touba ci géej gi alaaj ñu ko tànnoon bato bi andi woon Serigne Touba jëlee ko ci géej gi andi ko loolu nag ñu jàkkaarloo ak kër gi waaye ci kilifteefu ajaratu moomi Kebe di doomi alaaji Njuga Kebe ak soxna Mariam Jeng Saala waaye di di di di jigéen joo xam ne eh, taxawaayu góor la taxawee ci biir kër gi ñu duppee ko soxna Moominatu Mbàkke bint Cheikhul Khadim waaye mu yaroo ci loxol Serigne Salihu waaye def jomam nag itteem jëpp ci màggalu Touba ànd ko ak borom këram El Hadj Abdoulaye Tage mu mel ne saa yu ñu wane màggalu Touba dañuy wane rek berne yi muy def wane itam teraanga yi muy seq ak doomu aadama yi waaye ci biir kër gi boo fi duggee am na liggéey bu rëy bu mu fiy liggéeyee boo xam ne. liggéey boobu danaa dalal alaaji Jili Ñang di sama xarit eh, mu ñëw leeral ñu ndakate màggalu Touba laata muy ñëw am na liggéey boo xam ne dafay sax dàkk di liggéey bu lislaam boo xam ne moo taxoon sëñ Touba sañ ci dëkkam bi di Touba alaaji Jili ñëw ci ñun ak leeral ñu liggéey boobu aouzu billah bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah alhamdu wa shukru maan lillahi ala nabi waladi abdullahi sadid lisaani nawir janaani safi amaani wazid balaay jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ Fallou daanaka da ngay bëgg yaatal rek waaye lépp mënoon nga ko leeral ndax eh, fii nga xam ni fi lañ taxaw ñun yàgg nañ koo xam lool ndax suñu daayiratul mubaaraka bi ñu sëñ Saaliwu joxoon fii ci kanam tuuti rek 1974 la woon kër gi kon bi ba ni mu noppee ñun xam nañ ci dara booba waa Sotrac képp ñoo daan gaari fii yëpp diggante bi yëpp benn kër ñëw fi woon alaaj njugan naal fii lu toll nii ni nga ko ni nga ko ak jàkka ji li mu lay fàttali te loolu mooy màggal gi doomam ju baax ji nga tudd léegi nag li muy def ci lu nëbbu moo ëpp fuuf li feeñ waaye ren ñun ñoo ni ko mënta ñàkk maag yow mii mënta ñàkk liggéeyu biir bii nga xam ne moo gënal sëñ tubaa te nga nekk ci faaw ñu génne ko sëñ tubaa loo koy defal alxuraan ak gënal lépp sëñ tubaa doomu aadama ak gënal lépp lii lii mu lii mu jël fii jox ko alxuraan jox ko jàkka bu bu soxla woon ay millions dana ko ci am ndax ndax tali bii principal la moo jóge Daaru Musi ba Touba 28 kilomètres ba jumaa Touba mu jox lii alxuraan daa yegg danaa ànd ak yow ba ci sëñ daara bi ànd ak yow ci imam bi ndongo daara yi fiy jàng yitam li wàcc ci ñoom lépp mu koy def benn waajur ci ñu dëkk fii ci koñ bi seen ay doom di jàng si fii amul kenn ku ci joxe benn dërëm lépp moo ko féetewoo di di di fay imam bi imam sax kenn mënu ko fay ak sëñ daara waaye di mottali yéeneem ci ñoom yamul ci loolu li fi xale yi jàng alxuraan mënoon na doy waaye tànnaat keneen koo xam ne di nga dem ba ca moom ni ko yow bés bu nekk li ma la soxlaa ci kër gi bés bu nekk na alxuraan di jib ci kër gi kaamil bu jeex mu tàmbaliwaat beneen kooku itam di nga ko gis incha allah daa ngeen waxtaan loolu lenn la rek ci li nga xam ni mi ngi koy liggéeyal sëñ Tuubaa ci alxuraan fii ci dëkk bi dëppook ñaanu sëñ Tuubaa ñaanu sëñ Tuubaa ci biir mat la fausé ni sëñ Fallou macha allah eh, jërëjëf El jii li kon xanaa damay ànd ak eh, suñu caméraman yi tab bi ci biir kër gi jàkkaarloo ak daara ji eh, xam gone yi nañ fay jàngee li sëñ Tuubaa waxoon ne mallakanil qur'aanu tamlikan yadoom sun borom moom moom moom loo moom moomel gu dax sax dak waxaat inna jaawartullaha bi kitaabihi ilaa duxuliya jannatuhu dëkkaale na maag yàlla ci biir téeram boobu mooy alqur'an kon yaakaar naa ne képp koo xam ne yaa ngi liggéeyal sëñ Tuubaa ci alqur'an yaa ngi def li sëñ Touba gën a bëgg te loolu waxoon ne sama gimiñ mooy amoon yéene dëkk Touba di fa jàngale alxuraan kon ku ma dëkkal Touba te di ma jàngaleel alxuraan yaa ngi ci la ma gën a bëgg yaakaar naa ne loolu liggéey la bu suufee boo xam ne eh, ñu bari teguñ ci seen bët te soxna moom yi mi ngi koy liggéey kon ñu ànd doxantu dem ci biir daara ji أحببت ربنا bisimilah rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin eh, jërëjëf mbokk yi eh, yaakaar naa ne tàbbisi nañ ci biir eh, daara ji noonu ma ko waxee maak sama xarit di sama rak sa alaaji Jili Ñang ñoo ngi fii nag dend ak ñi nga xam ne ñooy magu quartier bi waaye di it ñi nga xam ne ñooy waa jàkka ji ñu toog nag ak sëñ Dàngura mi nga xam ne mooy chef de quartier bi bëggoon rek taatan ci moom ay kaddu yooyu xam ne kaddu yu seere la yu jëm ci taxawaayu. Euh, soxna moom yi ci quartier bi nga xamante ni yaa ko yaa jiite. maa ngi leen dalal jàmm di leen wax ba ah maa ngi nuyu limaan ji nga xam ne moo fi nekk toog fi toogaayu seexul xadim nga xam moo jiite jàkka ji muy limaan ji maa ngi koy jotal nuyoo sëñ Alaaji Jóob maa ngi koy nuyu di ko dalal jàmm te xam ne xel ne moom taxawaayam ah gis naa ko rafetlu naa ko bu baax a baax ah ba loolu wéyee nag man sama wax daanaka du ci bari soxna moomi moom ah gërëm ko rek la ñu mën a def nun waa quartier bi ndax li mu fiy def ak li fi fiy taxawee quartier bi wumpul kenn ñëpp yëg nañ ko ñëpp xam nañ ko ah ndax l'islam bi mu fi taxawal ak ni mu koy taxawee la ak ni mu ko defee nun ñëpp la ko defal waaw ah, yàlla rek moo tax nag mu di ko def amu ci ngistal amu ci lenn buggul kenn yëg waaye nag ku def lu baax moom ñu wax ko wàññiwul dara te lu baax mu ngi koy def kon nag ni ngi koy sant di ko gërëm ah te di ko dalal jàmm te xam ne xel na ne da nga koy ñaanal fu nu toll ah fan yu gudd lool lool lool ba lim yéene ci yoonu Serigne Khadim mi mi Serigne Touba yàlla ak Serigne Touba defal ko ko ci barke Cheikh Mountakha Mbacké waaw bisut baayam ba fan lépp lu mu yéene lépp loo xam ne baayam daan na ko bëggoon na koo naal te mën àggale mu àggale ko loolu noonu noonu ko koy ñaanal ci barkeb Cheikhul Khadim barkeb Cheikh Mouhamadou Takha mi nga xëy moom lañu yaakaar addina ak alaxira waaw maa ngi koy nuyu di ko sant ah di ko jaaree nuyu benn ci sëñ Lahat Diop maa ngi koy sant moom lool ndax gannaaw yàlla moomuñu bu ma ko xamee ci moom la jaaree ba tax na maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm taxawaay moom rafet na lool ci quartier bi. jërëjëf sëñ Dangoura yaakaar naa ne say kaddu mooy kaddu waa quartier bi yëpp ndax lépp lu ñuy def ci quartier bi ci sa loxo lay jaare waaye nag ñu toog ak sëriñ Alhaji Diop nga xam ne mooy imam bu jàkka ji waaye itam moo jiite daara ji kon day mel ne lépp lu jëm ci wàllu lislaam bi. lépp fii la ci loxoom lañ ko teg te kooku moo fi représentant mun Mountakha ndax moo fi représentant itam Cheikhul Khadim sëñ Alaaji ñu bëggoon rek ñëw tuuti daara ji nga xam ne ajaratu moom it tabax na ko ngir liggéeyal ci yàlla ci alquranul bëggoon nañoo taatan ci yow ay kàddu naka la taxawaay boobu amee ak nan lay taxawoo donga yi ak ñaata donga ñoo fiy jàng ak lu fi mokkal alquran ak wan wërtiif la warlu ci ñoom. di ñaan sëñ Mountakha dal na ko fi te wéral ko. ba liggéey bi yéen ji nga xam ne moom la am ci liggéeyal maamam liggéeyal ko lislaam suñu borom defal ko lu jukkawee njortam ak mboolem njabootu Sëriñ Tuubaa gépp maa ñu ngi leen di siyaare te di leen te di leen dalal di ñaanal tam suñu wasila ba suñu yaakaar ja muy Cheikh Saliou Mbacké yal na suñu borom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem ndax moom nun dun am euh, kon ñu leen di dalal fii te di leen siyaare di leen jox seen wàccuwaay di xamal ni daara ji maanaam ni muy doxee daal mooy comme noonu sun daara yi suñu saalu lañ nekkoon nañ daa doxalee te daara yooyu rek moom la ñuy doxalee fii maanaam jàng ak yaru daal mooy yar bi moom mooy li ci jiitu luñ ci man ak njàng liggéey amu fi ndaxte fii moom nekkul fu ñuy liggéey waaye bu doon foofa lo ñi ñett yëpp lañ daa boole jàng liggéey yaru ak liggéey maanaam jàng ak yaru ak liggéey loolu lañ daa boole waaye fii moom manees naa ni kon ab liggéey nekk fi ak ak yéene yaru ak jàng daal fas yéene tegu ci yoon ba njàng mi tam ni mu fiy doxee mooy maanaam saa fu ñu xëyee bu ne danañ fi xëy ñun ñi nga xam ñoo fi jiitu fi la ñuy jullee suba yàlla dogal na tam fi la ñuy nekk ba julli gee doog a doog a delluwaat ñiy jàng si at ñaari saafu huit jotee lu mu teg danañ ñëw jàng si bu midi jotee danañ wàcc wala midi demi delluwaat seen i kër bu trois heures jotee danañ jël si jàng ba juróomi waxtu jot ñu delluwaat seeni kër ñi nga xam ñi nga xam ne nag ñoo fi féete moom waxtu yooyu mala la wax bu ñu xëyee fi la ñu jullee suba ba kër yi ñuy julli gee doo ko delluwaat bu ñu amul benn teq-teq daal bis bu bis bu ne moom lañ moom lañ fi nekkee bu dee yi nga xam ne jënguñoot bu waxtu julli jotee danañ ñëw julli delluwaat ci kër ga waaw noonu lañ fi nekk daara ji nag moom ni muy doxee mooy soxna si moom lim ci li li ko ci war lépp mi ngi ko mi ngi koy def waaw ah, maanaam taxawaay bu bi mu ci mën lépp daal mi koy ci def dongo itam ñi ngi jàng ni ñu war a jànge am na fi ñu ñu fi wàcce am na ñu fi ñu fi bind kaamil jamono yi am na ñu am na ñu fi ñu ci mokkale waaw ah, ci daal ji waaw waaw ah, waaw ci lépp ci ci diir boobu la diir bi bi ñu fi nekk kon moom ab taxawaay mat a sëkk tey li li li nga xam ni moo moo ko war ci ñun ñi nga xam ni nun la fi tegit mi koy def waaw ndaxte nit keet boo ko tegee ci barab maanaam mu bàyyi soxlaam yëpp ngir loola yaa du war nga ko warlu loo tax loo xam ne mooy tax mu mën a nekk foofu ndaxte gor su ne daa war a am lu muy sàmme ngorom waaw te it nit ki bu liggéeyu defu dara sàmm ngorom dana ko jafe te doomu aadama ngor rek mu am solo ci moom waaw boo boo amee goreel boo ñàkkee goreel boo wéetee goreel boo wéttili ko goreel bu dee neex goreel bu naqaree goreel waaw loolu daal mooy li nga xam ne moom moo ñu fi bàyyi maanaam sàmm sunu ngor waaw daara ji nag moom comme noonu ma la waxee rek ñi ngi jàng bu dee dee ñi xam ne soriwuñ fi bu waxtu timis jotee dana ñëw jàng bu waxtu fajaru jotee buñ jullisee ñoom it ñoom dana ñëw jàng bu delluwaat seen kër ñi nga xam ne nag ñoo féete ci daara ji moom bari bëriwuñ lool daana ma ko doon seet warta ëpp fukki xel yooyu waaye man man maa ngi ñoom di fa naan sama kër léegi jëm bu ñu doon seet daara ji nag ñi fi nekk lépp lim bi war naa jege téeméeri nit ak ñaar fukk waaw waaw koy bëgg du ñàkk léeg-léeg moom lu ci luñ ci warul waaw waaw moom moom bu dee ci soxna si moom war lu ci kenn dara déedéet moom amul kilum ci teg dara leen leen luy génn ci daara ji wàllu intérêt wala dara la jëm ci ci moom amu ci moom daal mooy def ci daara ji waaye moom leen lu génne ci daara ji di jëm ci moom amu amu ci biir daara yi wàllu jàkka ji moom mooy ba tey ah, waxtu yi julli ji rek saa jotee dana ñodd julli am na imaam fan yi daa daa xaw a daa xaw a jagade moom moo ko tey moo ko tey ñëw Thierno Mbaye la tudd mooy waxtu jot moo fi nodd ñun luñ teel teel a ñëw ndaxte fa ñuy jógee ak ak ak jàkka ji daa xaw xëcc tuuti mm-hmm. waaw mais ñun danañ xaw a am biir waaye luñ teel teel a ñëw waxtu soo bi mm-hmm. danañ fekk mu noonu doo dugg jëkk bu noonu dugg ba fekk ko ci jàkka ji waaw kon ñaari fan ya ñett daal la xaw a am jagadi ba nga xam ne looloo tax fekku leen ko fi tey waaw waaw ñoom itam béykat am na lu mu leen war lool waaw. waaw taxawaay bi ci jàkka ji taxawaay bi ci daara ji mat na waaw waaw waaw. léegi léegi nag moom du dëng ci kàddu yi nag matadik doomu adama la waaw ñu ngi koy jéggaloo taxawaay waa na nga ko waxee noonu la demee moom soxna mooy bi ku baax la xam naa ca lu baax mu lan xam ci moom yàlla dogalee bi ñu wooyee nii daa bëgg koy jàngal foofu mi ci kër gi mhm. xanaa xaw naa amub diir mhm. xanaa war naa toll ci ay 2004 daal boobu léegi mhm. ñu fi xëy saa yu ñu xëyee li tool ñetti bis yoo xam ni muy ajuma ak altane ak alxames ci ñu wàjjal ko fépp kaamil diggante ajuma ji ak alxames ji ak altine mu ci ne wàcc foofu kaamil ma noonu lañ koy def waaw bu ajuma bu ñu dañuy wàcc benn kaamil te maat ba altine ñu ñëw jàngaat fi benn kaamil boo alxames yi ñu ñëwaat noonu def jàng benn kaamil mu ne da ko defal ngir di ci ñaanal ay waajuram muy soxna Mariam ak sëriñ Njuba Kebe loolu wax ne ci ñaanal ak bépp julli bu ci xaaj rek ñu ko def noonu di def ba bi sëriñ Saliou làqoo ci la ma waat ne ma dama bëgg léegi kon nga boole ci sëñ Saliou ma ne moom daa mel ni daa bëgg sëñ Saliou ba amu ci sax waxam ma léegi da ngay def sëñ Saliou de boo jàngalee sëñ Saliou ajjuma ji bu altine ji ma jàngal waa jëm wu jigéen wala xam ne si ma jàngal waa góor mi suñ jokkee noonu daal lan jàppoon maa moom ba nag si te ba nag ni mësta maa ngi ci ba nawet ak noor waaw muy ko bëgg lu baax daal xam naan ci moom def ay teraanga yu baax yu bari ci ñu ñu ñu fi ñu fa nekk moom daal xam naa moom ku bëgg lu baax rek te ku bëgg sëñ Saliou daal la moom loolu laa xam nañ ko ci moom waaw li mu war looga ñu nit dëgg yàlla boobu ba nëgg ni dara mos cee manqué te toujours da koy yokkit amul fu ku baax daal la xam naa daal suñ baax di ko ñaan daal suñu boom gën a yàggal ab taxawaayam waaw xam naa ne kër baayam gi moom mi ngi koy taxawul ni mu waree ci lu baax muy alxuraan ak jàkka ji ak daara ji lu ci li mu war mi ngi ko ci def comme ni ko suñu imaam yi waxee rek waaw loolu daal lañ ci doon sànni seen kàddu di ko seeree daara suñu Fallu ñooy ñaar wax bi yow noo tudd sëñ bi laa tudd sëñ son yi bu nan baaxul ah, fii ngay jàng ci daara ji waaw ci daara ji laa jàngee xam nga soxna Momy Kébé waaw soxna Momy Kébé xam naa koy ah, yow foo toll ci alxuraan man maa ngi toll lantanaa loo lantanaa loo bi waaw ah, lan nga xam ci soxna Momy Kébé soxna Momy Kébé ak baax rek laa xam ci moom di dimbali ñi di def lu baax rek di sampi daara comme ni ko yàlla bëggee noonu dong la koy defee di def lu baax rek màggal gu jot day mel ne ko tàggaloog sagoom def li ci daara ji ñun dong yi jooyu ñu dara lu ñëw rek mu def ko ci ñun loolu lu baax rek laa xam ci moom. fan nga ma mën a taal ci alxuraan. man xaaral taal lan tanaalu. bisimilah. auzu billaahi mina shaytaani rajiim. bismillaahi rahmaani rahiim. lan tanaalu l-birra hattaa tunfiquu mimmaa tuhibbuuna wa maa tunfiquu min shay'in fa inna llaaha bihi aliimun. kullu t-ta'aami kaana hilan ilaa banii israa'iila ilaa maa harrama israa'iilu alaa nafsihi min qabli an tunazzala t-tawraatu. qul fa'tuu bi t-tawraati fatluuhaa in kuntum saadiqiina فضلوا إن كنتم صادقين فمن افتري على كذب المال صادق فأولئك هم الصالمون قل صدق الله فاتبعوا من فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا ما كان من المشركين إنه لبين ودانا التي بباكة مبارك وهدى للعالمين فيها أيضا بينها مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا samay waajur moom maa ngi ñaan boo wàcc mokkale alxuraan samay waajur yàlla may ma moo wàccal alxuraan ba pare yàlla may ma xéewal ak ma mokkal alxuraan yàlla mi leer ak sëñ Alla Juum ñu ko jàngal maa ngi ko sant di ko gërëm ci jàngal bi mu jàngal alxuraan jàngal bu wér ah, sonn ci ñun trop luñ lu jug du ci def dara day ñun wax ak ñun jekk ak du def dara day wax ak donga yi ni mu ko bëggee samay waajur nag sama wàcc alxuraan ñoom ñëpp lay gërëm ndax bu la neexoon mën nañ maa bàyyi bañ maa bañ maa jàngal mais ñu dugal ma si daara may jàng man loolu lu am solo la